ñun buñ toogee si tele bi ñu dégg ne Gambia ñu ngi am one case léegi ñun bu loolu amee ñun dañ ut ay siwo ut pour raxas suñ njobooti ci la school tëj ci la school tëj ñu nekk fii du contrôle suñ xale seen génn a bërut waaye demuñ school waaye Mr Janko moo nekk ku fi waxe moo dee nekk du tic xale si school kër gi seen taabul baa ngi ni fii la dee comme ñu ngi seen normal lesson daal ñu ngi jànga waaw taa daf leen dee jox comme test nii pour muy jàngal xale yi waaw ñun leen contrôle bu baax a baax. waaw ñun benn bi si guddi fii ondi dit na eight si guddi man maan si biir du seetaan ñuus si la Mr Janko tey mu ngi jàngal xale yi fii moom waa ji romb ko nuyu ko. waaye moom dafa tiit mu ñëw fekkaa ma si biir mu ne ma ah yëg nga ne diw ñëw na man ko kan man dama tiit sa bay lox man na ko nga ne lan because man kees depuis lii am man ñemewu ma daal because man dama dee dem liggéey sa waaye dañ ma ne bu ma dem liggéey naa toog gi pour ma tekkiyaa suma xale yi léegi maa ngi tekkiyaa suñ xale yi ñun kenn duy génn du doo dee dem fen sooy dem marché sax suma jëkkër moo ñu dee yóbbu marché ñëw indi ñi waaw léegi ñu toog ñu gis kenn ki ñoo ondi eet si ëllëg si tamit ñu ñëw gis ku ñëw on the nine waaye on the eight bu yëfi amee Mr Janko si boppam moo jël téléphone bi call gaay mu joxe ripot bi man suma boppa koolaat naa yi ma ne leen Mr Janko call na fi joxe report bi mu ne ma waaw xaarañ ma seet ko si liste bi ñoom seen boppa call nañ seet nañ ko si liste bi jaxa bi si boppam mu ne ma ne loolu dëgg la confirm nañ ko man ko ah yéen kanaa booda bi dafa ibbi mu ne ma ne déedéet gars yi dañ nekk du xosul du dugas man ko legi naka ngeen muna muna nit ñi mu ne ma comme soo leen gisé li rek da ngeen wara kol maka ñun kol nañ de batay tey leen ta man fuma nekk ni ma ngi amé njobor yu sew ma ngi tit ba bu a dee ma man ko kana fi tay amerika la man ko wa wa jaha bi sa bu afta si moom mu ngee man ko way fii Banjul fi sénégalais yaa ngi fi fees jis foo wiiree da nga gëj gis nit sa nga ñew gis ko si laa wàllul sista bi fekk ma ngi kol 10 25 man dama waxon suma man damay dem si suñ kotas bi fële Angousting man fire officer la ma ne damay dem foofu because suñ ma ne toogal si kër gi ma toog pour tekkiyaa suma doom yi dewu ma liggéey di depuis si weeru koor bi maa ngi toog kër dew ma fen nit ñëw indil ma feebar ma ne man léegi lan laay wax suma gaay yi suma gaay yi dañ ma tekkiyaa bu baax asuma njaboot moo ta ñun ma naa toog kër léegi man maa ngi toog kër nit ñëw jox ma ko man ko bi ko ñun kool nañ gaay yi ñëwuñ ñun léegi man damay dem mu maay ree yow da nga ragal depuis démb ba tey man comfortable ma daal. government bi de suñ mun nañu dimbale si booda bi su nekkee ne immigration rek munuñ koy def service baa ngi bëri nañ jël ñeneen ñi yëpp ñu dem ñu contrôle booda bi gos booda bi su am na contrôle moom gaa yaa ngi over try waaye nañ ñi gën a dimbale gaa yi si bagwee bi lañ nekk du ñëwee man am na ñoo xam ne dama leen dee interview du leen laaj ñu ne dañ dee ñëw ba si bagwee bi ñu wàcca si yooni suuf bi waaye duñ dee indi baag. comme nii nuñ solee nii rek lañ dee ñëwee ñu jaar si yoon bagwe bi ñu ñëw waaw loolu la gars yi wax ñoolu ñun dañ leen mere parce que démba su guddi sax ñun dañ waayal seen ko bañ coowaa ñoom ñu ne leen yéen dégg ngeen kees bi mu ngi am soo leen ñëwee ngeen xam ne ñun fii borom joboot leen dangeen ngeen waroon a dem si lopitaan bi ñu tes leen dafa fekk sax suñ ejee ni kér gi tamit tombee na loolu mu attaque benn góor gi mu ne ko yow xam nga man lañ jox kër gi soo ñëwee waruloo ñëw naka nga ñëwee suñu éjénikéet bi moom laaj na ko ko mu ne ma Gambia dañ ma test Sénégal test ma kooku mu ne ko lu tax ñu laay test ibbi wuñ booda bi xam na kooku daf doon baag boppam rek si la suñu éjénikéet gi waayal na si kawam bu baax a baax ñun tam démba su guddi dañ say fii mer ba bugga di te am na ñun koolaat sax si guddi gi ñu ngi always du kool ñëwul léegi ñun sa tey dañ mer ñu ne si gars yi ñëwee dañ lay wax ne gisuñ leen gos three days ba léegi Ah, ñoom ak ñeneen ñi ñoo bokk waaye man bokkuma ñoom fu ñu sango man dama amee pompe si biir ah, ak wanag si biir.